diggante Laye Bruce ak Ama bu Yaraax Laye Bruce def na 14 combats def 4 défaites def 10 victoires waaye Ama bu Yaraax def 6 combats 6 victoires. kii mu kii mu sagul dégg mu ñël ak ki dégg mu ñël la. mu ngi daan Gorofil. mu ñël. Laye Bruce mu ngi mujj fii digganteem ñagas. ñagas 2 ndeysaan tey ñoom ñaar ñaar ñoo bokk benn gétt gi ñuy bëre tey. nee naa la Ama bu Yàlla dafa miin fi ñaari yoon. daanaan la ñakas jëm miin fi benn yoon. kii laa bi miin fi am na bu Yàlla dafay wàcc simple di wàcc dóor. waaw Ama bu Yàlla day wàcc simple di wàcc dóor. comme ni ko waxee moo taxit mbër bu mu tollool am problème. waaye day bëre ki nga xam ne ileeri gumbal xam ne daanaan la doomu kër Mbay Fall la moom laay birisili ana laay birisili bu mag ba ndeysaan mag xam naa ne moom laay birisili ci stade bi toogatul tëddootul arbitre sifflé na arbitre sifflé na ndeysaan laay birisili ak ama bu yaraax ndeysaan idi ñaari mbër yaa ngi lew too dañoo tolloo boo xoolee ama bu yaraax mi ngi déplacement da ko bëgg a wër nee naa leen saako yi fekkiwul kenn waaw ñoom ñooy fekk ci saako yi fekk saako yi taxaw jugeewu fa yéen a ko yéen a déplacé wu mais ama bu yaraax nangu ta taxaw de dafa dafa bëgg a songu amaa bu Yarax bërekat la xeex. mbërum babat la daanaan la. waaye cey laay biri si xoolal ma Leewtoo ba ma ngi koy dagg. waaw nanguwul taxaw. ndeysaan moom Ama bu Yarax. waay waay ma ngay jay jay di fañax fañax yi. oho waaye laa ngi tekk ndax dafa bi jugee fii nakar la fi jugee. waaw waaye Ama bi mu fi jugee. bànneex la fi jugee. diggante ma goro fii la woon fii ndeysaan ama bu yaraax moo ñu wan ginnaaw waaye laay brise lañ jàkkaar lool ndeysaan kii mu ngi waree yaraax moom bébé ama kii waree kër Mbay Fall ndeysaan wës jàmbaaro koy ni mu ngi sunu ginnaaw ama sànni na ama sànni na kii Ibou ko indi at laay brise li dóor ma dóor dóor dóor da doom daan doom ama dóor na ko mu tërëm laay brise li jël na ko jël na ko ñu xool ñu xool lu xew daan na ko septième combat sept victoire sept combat sept victoire nee na nañ ko jox Eh, ndaanaan la kii mbër la ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan la oh, oh. ndaanaan la mi ngi jëkkati ko jóg mu jóg ndeysaan Ama bu Yarax laal yoon sa mbër moo am na ndam eh, bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi chaque dimanche kenn bàyyi chaque dimanche kenn bàyyi bul bàyyi bul bàyyi chaque dimanche kenn bàyyi te day ñëwaat waaw day ñëwaat Ama ngi noonu ndeysaan mu ngay jooy Fall Yarax ko indi ko koy Fall Yarax moo ko indi ndeysaan Ama ngi noonu ndeysaan daanaan la non moom Ama bu Yarax daanaan ku lu fadlin la ndeysaan alaaji bas